a jàmm ñu ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyantoo yéen i kaay gi di réew mi ko di jeex xëy diñu xibaar naan ñu élection locale yi yëg si gul waaye nekk ma ngi mel saañ ba réer en tout cas pëccxoo na lool la rawatina ci biir coalition benn bokk yaakaar ñi nga xam ne ay xeltukat lañ seen xel màcc ci jëm ci wàllum politique ñu leen di woowee ay analyse politique xëy nañ ci réew mi ko di jeex di càmbar coalition benn bokk yaakaar ak lan moo a fekk yaakaar dafa bëri ay erreur yoo xamante ni daf ca yàgg te Macky Sall dafa waroon a anticiper daal di koy saafara moo tax dina bëri ay jafe-jafe lool ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar moom professeur Moussa Diaw nee na ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar dafa bëri ay parti yoo xam ne kenn structuré wu ko te nag am na ay leader yoo xam ne maanaam du ay leader yoo xam ne yu légitime lañ ba tey ci biir journal bi moom professeur daal nay wax ne lii nga xamante ni moom laa gis daal mooy nguur guy jeex Momar di analyste politique di journaliste daal nay wax ci frustration bi nga xam ne moo nar a ci biir benn bokk yaakaar ak na conséquences yi nga xam ne moo ciy tukkee Mamadou Sy Albert di analyste politique daan nay wax ne élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmale soo muy tuule APR ci boppam moo nar a explosé moo nar a xar ñaar yéen kaay gi di Libération wax ci élection locale yi ba tey daan nay wax ne règlement de compte yi jamono ji nag daan nay commencé ndax nag ñi nga xam ne ay conseil lañu nekk ci ville bu Ndakaaru ñoom nag ni ki démb janoon nañu ak taskatu xabaar yi nee nañu Soham Wardini la ñuy jàppale ba pare nag ñoom ñoo ngi yuuxoo di wax ne lii nga xamante ni moo xew maanaam complot la ak ay manipulation yéen a gi di réew mi quotidien nee na Ndindi ca département ba Diourbel foofee nag a daan na fay xar ñaar ndax Makhtar Sylla mi nga xamante ni maanaam moo nekkoon coordonnateur bu APR ci commune bu Ndindi daan nay démissionné ci APR ba pare dem na ko fekk Yewwi Askan we Cheikh Ba ca diwaanu Médina moom la ñu jiital yéen a kaay gi di source xëy dañu xibaar naan ñu ñu bare bari jàpp nañu ne Ousmane Sonko candidat lay nekk sa diwaanu Ziguinchor journal bi nee na déedéet Ousmane Sonko nekkul candidat ci commune bu Ziguinchor nekkul timit candidat ci département bu Ziguinchor yéen kaay gi nee na Aïda Mbodj moom tim nekkul candidate ci commune bu Bambey nekkul timit candidate ci conseil départemental bu Bambey yéen kaay gi de la témoin xëy du ñu xibaar naan ñu duel maanaam jàmmarloo bi am diggante Soham Wardini ak Barthélémy Dias maanaam Khalifa Sall jamono ji nam say doxee dara leeru ci clair obscur Khalifa Sall dafa ne pata pataaral ci mbir mi kenn xamul fan la fare yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy coordonnateur benn Bokk Yaakaar ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal loolee nag sunu neexee ñu jàpp ne Macky Sall ci diiwaanu Ndakaaru Abdoulaye Diouf Sarr lay jiitala ba tey ci journal bi ci xëlim ak Assane Samba nee na Amadou Ba daal mën nañu koo jàppee ab premier ministre politique yéen a kaay gii di Vox fekk fa Amadou Ba daat nay wax ne coalition benn Bokk Yaakaar munuñoo xaajaloo ba pare def ay liste parallèle ba pare xalaat a gagné loolee munta nekk Amadou Ba nee na coalition Benno Bokk Yaakaar dafa am loo xam ne dafa war a leer ci seen bopp bu ñu xaajalikoo daal coalition benn bokk yaakaar na leen leer ne dina bëri ay gox yoo xam ne dañu koy ñàkk yéen a kaay gi de la Tribune xëy dañu xibaar naa ñu Amadou Ba mi nga xam ne Macky Sall ñoo dina ko teg ko ci wetam ak Abdoulaye Daouda Diallo ñaari ñoo xamante ni maanaam ay adversaires yu mag a mag lañ yu leer nañ ñoo wër Macky Sall yéen a kaay gi de la Quotidien xëy ci ville bu Ndakaaru nee na Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf Sarr ba léegi suspense bi ma ngi wëy yéen a kaay gi nee na ca diwaanu Kolda foofe nag ca département ba Moussa Balde la fa Macky Sall bàyyiwaat ca commune ba Macky Sall daal di fay kaay bii bii balde yéene kaay gi nee na ñaari balde yi la ñu nag yóbbu ca diwaanu Kolda ba tey ci biir journal bi nee na Mame Boye Diao mi nga xam ne moo jiite impôt et domaine moom dañu koo jàppe yéene kaay gi di libération xëy ñu yóbbu sa diwaanu Ziguinchor nee na nag Doudou Ka Doudou Ka ñi nga xam ne ñooy ay farandoom ni ki démb nag génn nañu janoo ak taskatu xabaar yi ñoom nag dañoo tuumal Macky Sall wàllum trahison wàllum wor ñi nga xam ne ay jegeñaale Doudou Ka laña dañoo jàpp ne Macky Sall dafa wor Doudou Ka problème yaa ngay démarré yéene kaay gi di naan ñu Abdoulaye Balde Macky Sall def koo sacrifié Mame Boye Diao Macky Sall def koo sacrifié Doudou Ka Macky Sall def koo sacrifié yéen a kaay gi di enquête Abdoulaye Balde moom nag nee na daal dina dem ci élection yi dina jàmmarloo yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar ñu Assome Diatta mi nga xam ne nee na candidat la ca diwaanu Kër Massar tax na nag Benno Bokk Yaakaar Kër Massar pëccaxoo gaa nga mel ni tulleeg male yéen a kaay gi di Vox Populi xëy dañu xibaar naan ñu nag lu jëm ci wàllum nag ville de Dakar ci na coalition wàllu Sénégal ana kan mooy nekk seen seen candidat ci Dakar journal bi nee na est-ce que du Abdoulaye Wade wàllu Sénégal est du Abdoulaye Wade la ñuy bëgg koo samp nekk seen candidat ci diwaanu Dakar journal bi nee na nag loolee bu amee daal maanaam wàllum politique bi ci boppam léppay sopparñi ko te nag Abdoulaye Wade yàggatul dara dina ñëw ci diwaanu Dakar yéen kaay gi di Sud Quotidien élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal Macky Sall nag ma baatare li nga xam mooy carte gi Macky jëm ci wàllum location bu seer bi nga xam ne jéggi na dayoo loole nag njiitu réew mi di président Macky Sall daan nay ñu andi si ak jubbanti ci ni mu gën a gaawee yéen kaay gi di Stades xëy di ñu xibaar naan ñu FC Barcelone jamono ci ñoo ngi ci ay jafe-jafe yu mag a mag moo tax seen entraîneur ba Néma Coman daan nañ koy dàq yéen a kaay gi di Stades nee na Liverpool jamono ci ñoom Sadio Mané ñoo ngi def loo xam ne nag la ñu defoon 2020 daal moom la ñu dooraat jamono ci ndax nag championnat bi Premier League ba mu dooree ba léegi tey la neuvième journée bi te amul benn défaite boo xam ne Liverpool am na ko